nag ku leen ko jox lañ si yemale te nag coalition benn bokk yaakaar ñoom tim nee nañu ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmale danañu wàcc si mbedd mi janoo ak ñoom Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall yéene kaay gi ne nag ñi nga xam ne ñooy direction générale des élections ñoom nag dañoo wax waa coalition Yewwi Askan ne mooy bon à retirer bi yéene gi di réew mi quotidien nee na ni ki démb coalition Yewwi Askan Wi bi ñuy janoo ak taskatu xabaar yi di di Macky Macky Sall gàntal gi mu gàntal dem bi nga xam ne waxoon na ko diwaanu Sédhiou ak Kolda ak moo tax difu ko ndax xam na ne difu fa lenn te dafa impopulaire yéene kay gi la témoin nee na jamono ji tension bi mu ngi yéeg te ajuma ji xam ne moom la ñu dëgmal lu ne mën na am ci réew mi jamono ji gars yi war nañoo waxtaan war nañoo teggi seen tànk yéene kay gi di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom nee na ñu dëgmal eggaguñu si nag tension bi nga xam ne moo am ci réew mi jéggi na dayoo yéene kaay gi di enquête Déthié Fall nee nag mënatuñoo continuer daal maanaam di dund jaay doole gi nga xam ne moom la Macky Sall nekk ci réew mi Déthié Fall nee na Macky Sall da leen te Macky Sall jaay doole ak ay loi loolee la Macky Sall nekk ci réew mi te jamono ji jot nañu janoo ak moom yéene kaay gi di réew mi Benno Bokk Yaakaar ñoom Yankhoba Diattara démb ñoom tim janoo nañu mi janoo ak Camara nee na jamono ji maanaam tuuti rek mën naa dugal Sénégal ci ak girawaale ci njombe goo xam ne réew mi ngir mu génn si dana jafe lool benn étincelle maanaam benn fer ñeent benn fer ñeent rek mën naa dugal Sénégal ci guutaay yéene kaay gi de la turbine nee na bu mag a mag jàppante bu rëy moom la ñu jëm jamono ji yéene kaay gi nee na njiitu mi di président Macky Sall fi mu jëmee réew mi baaxul fi mu jëmee réew mi baaxul yéene kaay gi de l'info nee na coalition Yewwi Askan Wi li nga xam ne mooy barrage bi maanaam danañu moom la ñu dëgmal amal seen mobilisation ci ndakaaru ak sa Ziguinchor yéene kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Alioune Tine nee na jamono ci lii nga xam ne conseil constitutionnel def na ko mbir mu dangereux la mbir mu doy waar a doy waar la xamuñu fan la ko conseil constitutionnel teg ndax nag amul ci wàllum yoon ci réewum Sénégal wax ne liste suppléant mooy dem ak wax ne liste titulaire rek mooy dem Alioune Tine nee na loolee amul ci sunu nag sunu luwaay na ñi nga xam ne tamit ñooy mooy njiitul direction générale des élections te ministre bi dañoo njort ni dafay parparloo dafay faral waa Benno Bokk Yaakaar ba nag di invalider ay liste yéene kaay gi na li bokk na ci li nara andi nag jafe-jafe yu mag ci réew mi yéene gi dale ko di cee moom nag ma woote lu jëm ci wàllum apaisement maanaam ànd ku dal yéene kaay gi de l'Observateur ñu xëy fekk fa Amath Suzanne Camara mi nga xam ne moo waxoon ne Ousmane Sonko ko war a war a rey Ousmane Sonko ndax kàddu yooyu nga yëkkati yaa ngi koy réccu nee na amul lenn lum ci réccu nee na ci dara yéene kaay gi di 24 heures ñu koy fekk fa Mamadou Lamine Diallo nee na nag Macky Sall commencé na def ab campagne ja bitim ngir nag am ñetteelu candidature Macky Sall li mu bëgg mooy toogaat ci bopp réewum Sénégal yor sunu pétrole bi ak sunu gaz bi te loolee waruñu ko nangoo yéene kaay gi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samba nee na justice populaire maanaam fajal bopp gi ma ngi mel ni tulleeg màlle ci bëri na ñoo xam ne bu ñu jàppee ab wala koo xam ne jàpp nañ ne def naa girawale gars yi dañuy jekk-jekk rek daal ci kawam duñu xaar sax takk der yi ñëw te nag erreur mën na see am yéen kaay gii di las nee na gouvernement bu Sénégal génn na lu toll ci cent vingt milliards ngir na abri provisoire yi ñu daal di ko fiy jëlee maanaam classe yi nga xam ne ay sàkket ay mbaar lañ ko defaree xale yi di si jàngee loolee lañ fi bëgg a jëlee moo tax gouvernement bu Sénégal génn na cent vingt milliards yéen kaay gii di Stades xëy duñu xibaar naan ñu Bayern na jamono ji nag soxla nañ Sadio Mané loola ñi nga xam ne ñooy waa Bayern na trente cinq la ñu waxoon Liverpool Liverpool